ne tey jii dañoo war a réconcilier euh, li nga xamante ni moo di dëkk bi ak son peuple jàpp ne également dañoo war a gaaw a résoudre jafe-jafe yi askan bi am jëm ci wàllu lekk bi ci wàllu waaye bi ak yu ni mel jàpp ne lu ni mel tey ji moom mooy moom mooy moom mooy priorité ci li nga xamante ni moom moo di euh, fan yi njëkk ci li nga xamante ni moo di nguuram. très Euh, ñoom nañu jéem a euh, xool le fond te jéem a ba génn ci yi ñu nekk ndax lii nii ñu nekk nii moom moo leen yóbbee défaite bii alors donc kon euh, sur le fond de la ah, commune yii nii seen ay détails ay ay waxi daane ci saret ay waxi ndax sa xandang moo leen yóbbee lii ñu ne alors donc nañ jéem a xool naka la ñuy waat seen taxawaay <coughs> baalu ak sénégalais yi balaa ñoo waxti ah ci nag. li fi nekk ci ñaawteef li ñu fi def ci mbonteef li ñu fi def ci fitna. li ñu fi def ci lépp loo xamante ne tey jii nii mu ngi ba léegi euh, ça n'a pas encore cicatrisé donc kon ñooñ euh, ñoom opposition bi ñoom euh, amuñu état de grâce ci opposition nañ am responsabilité. mais dégg nga président biñ koy interviewé ak suñu confrère yi nekk BBC laaj ko ci wàllu mu ne mel moom jàpp na ne amuñu lu ñuy baaloo askan mi ndax lépp lu ñu def dañ ko teg ci charte la maanaam ni ni ñu def Azoura Fall ci charte la tegu ñetti émoji yu Ousmane Diagne ci charte la tegu nañ ma wax ban charte la na gaaw bakkan yi fi loru yooyu ban charte la. nan ma ko wax te ay gor yu set wecc tëj leen ci prison yi pendant autant de mois loolu moo loolu tegu na ci charte waa baax na ñi nga xamante ne tey nii seen bakkan rotu euh, ci mbir yi ah ana ñoom Famara Goudiaby ana ñoom euh, Baye Cheikh Koli ana ñoom Pape Amadou Keita ñooñu ñëpp ñàkk nañ seen bakkan penda ana ñoom euh, Baba Kaana yooyu charte la tegu bisimilah yeggaguñ ci loolu noonu parce que man jàpp naa ne à partir de septembre assemblée bii nii dañ ko war a dissoudre dem ci beneen assemblée yépp lu ñu fi woote woon ci lu bon ñu toog xoolaat ko càmbar ko loi d'amnistie bi foofu ñu xoolaat ko ah oui yi fi xew noonu yëpp. mais baax na également nga leeralal ni ci bu ñu doon dem ci dissolution boobu ci ci fan la ñuy sukkandiku ci wàllub yoon leeral ko ni prérogative président de la république. article 87 de la constitution. président de la république am na sañ-sañ après deux ans de législature lu c' pourquoi j'ai septembre parce que législature bii nii septembre la ñu ko installé en septembre le président a toutes les prérogatives pour dissoudre assemblée assemblée bii nii pour man euh, lu la moom. bokk na ci premier acte yi mu war a jël parce que c'est l'assemblée de Kouramaki on a on a on a besoin d'avoir des députés nag dëgg dëgg. yaa ngi fekk bëri crédit. Euh, bon euh, na crédit euh, fi mu toll nii man maa ngi xaar parce que dafa am lu mu ñu digoon dernière promesse électorale dafa ne woon bu Diomaye gagné. day xaar ah, léegi ñu ngi xaar loolu noonu waxaguñu ci jëmaguñ ci loolu donc assemblée bi pour en revenir à l'assemblée. Oui. Euh, parce que euh, quand je parle de ça. je pense à la loi d'amnistie qui mérite modification. parce que ñi nga xamante ne tey euh, seen bakkan rot na dans le cadre de ces conflits loolu tegul ci benn charte donc ce que euh, le président a dit à vos confrères de BBC pour man am na ci yu bëri yoo xamante ni ci réew mi jot na ñu jooyanti ko parce que euh, le président Diomaye il est élu aussi pour réformer ci texte yi ci parfois institution yi mais aussi ci système judiciaire bi ak yu bëree bëri mm-hmm. donc kon euh, loolu noonu jàpp naa ne c'est quelque chose qu'il comprend avec hauteur avec responsabilité nécessaire moom euh, président Diomaye li tax euh, sama xel mën a dal ci moom moom mooy euh, c'est quelqu'un ku juddoo njaga ñaaw donc dans des coins les plus reculés du Sénégal mm. fréquenter l'école publique sénégalaise xam Sénégal bu metti bi xam Sénégal bu yamamaay bi xam la haute administration sénégalaise c'est-à-dire Diomaye il est le prototype parfait de ki nga xamante ne foog naa mën nañoo génne ci situation yi ñu nekk ak euh, benn fitness d'esprit ak mm, esprit bu structuré vraiment discours bi bon euh, euh, maa ngi dégg ñu naan dégguñu lii dégguñu lee mais attention quand ci benn problème bu Sénégal yëpp kenn mënu ko wax ci benn discours quand même il a cinq prochaines années yoo xamante ne am na temps bi pour mën a joyanti lépp loo xamante ne dëngoon na ci Sénégal alors donc quand il dit que ni day exercer un travail acharné boo xamante ne du décevoir Sénégalais yi il a tout dit il a tout dit il a parlé de la réconciliation effectivement. Mm. nekkoon nañ ci station boo xamante ne Sénégal euh, man gis naa ñoo xamante ne bokk ndey ak baay mun duñ mënatuñu wax ndax bokk euh, bokkuñu couleur politique. dëgg la am na fi ci réew mi. am na ci réew mi situation yoo xamante ne euh, mm-hmm. Penda. Mm-hmm. ci inimitié ci haine loo xamante ne il faut que ñu penser yooyu noonu yëpp. def la réconciliation nationale te xam ne les 18 mm. millions de sénégalais doyuñu pour tabax Sénégal mm. et le président Diomaye a compris euh, ces enjeux là mm. te wax na ko clairement mu nekk ay urgence voilà euh, wax ko clairement que ni même opposition bi dina leen jox seen dayoog bu mat sëkk pour ñu opposé wu ne mu waree contrairement à lui ce qu'il a été victime parce que moom euh, Diomaye post Facebook moom moo tax ñu tëj ko prison nga gis ñeneen ñoo xamante ne euh, moom clochardisation de la justice la waxoon ñeneen ñuy taxaw di jiiñ ay juge corruption ñu jàppale leen ci deux poids deux mesures loolu boobu Sénégal lañ bëgg mu dakk Sénégal bi ñu bëgg mu dakk mooy hmm. bi nga xamante ne euh, da ngay gis waa ñooñ APR doon wax lu leen saf hmm. dara du leen ci fekk ñenn ñi di euh, wax mooy que sax ñu tëj leen sénégalais boobu leen bëgg mu jeex Sénégal boobu leen bëgg mu jeex boo xamante ne on respecte sénégalais yi yëpp euh, am égalité devant la loi. Quand dans son discours dans le jàpp nga ni il a tout a été à la hauteur. il est déjà sur la dans la peau d'un président. aussi bien euh, sa retenue que sa tenue donc man euh, jàpp naa ne euh, te aussi euh, quelqu'un qui a Ousmane Sonko derrière lui qui a tant d'autres commis de l'État le président Wade gars yi ba ñu doon wax naan coal Diomaye amul expérience ma ne la Diomaye da moo kese moom moo jiite coalition bu am ancien président ci ginnaaw amul beneen képp moom kese la woon donc ña doon wax waxu expérience ak xaw la nag lan dañ dem toogee nee donc kon xam na li koy xaar discours bi firndeel na ko parcours bi firndeel na ko Euh, te te te te je pense qu'il a assez de bagage pour vraiment euh, nous tirer d'affaire. d'accord tant que yaa ngi koy souligner wax nga ba daal li nga xamante ni moom moo di amnistie bi nga jàpp ni euh, voté nañ ko waaye am na ay yi nga xamante ni war nañ ko ci apporter ndax ci wàllu woowee tamit ginnaaw ba ñoom euh, amnistie bi euh, promulgué prononcé nañ ko loi bi tamit promulgué nañ ko ñu doon xaar mu yegg ci li nga xamante ni moom moo ñeel ñu annulé li nga xamante ni moom moo di décret. pexe ba ñu jëloon ngir mun a dissoudre seen parti ndax jàpp nga ni loolu également bokk na ci war na bokk ci priorité moom en tant que président. dissolution de Pastef. non loolu delloo nañ leen seen récépissé yëgoo ko ci diggante bi. yëguma delloo nañ leen ko bañ génnee jour bi ñu génnee. <laughs> ca suba sa lañ leen delloo seen récépissé man li boobu rëcc na la <laughs> fenn yooyu dina lay rëcc kon yow <laughs> boobu rëcc na la ex Pastef ñun suñu parti lañ léegi Pastef dellu si waat na ex léegi fi mu toll nii kay euh, ña doon wax ex Pastef ak yooyu noonu yëpp mais parce que euh, yooyu noonu yëpp ay tooñ la woon euh, soxna Penda. Mm. parce que lan la ñu waxoon que ce partie la à travers ses instances. ak euh, xaw ma lan dañ doon appeler à des mouvements insurrectionnels et je leur ai dama euh, donné des exemples clairs sur des appels ouverts à l'insurrection mm-hmm. yoo xamante ne euh, kenn laalu seen parti mm-hmm. donc yooyu yëpp ci tooñ bi la bokkoon mm-hmm. mais président Macky Sall man jàpp naa ne moom kese la défaite bi kiiwul bettu ko bettu ko bettu ko loolu dinañ ci ñëw défaite bi bettu ko moo tax avant muy dem mu fexe ba essayer de limiter les dégâts delloo passif récépissé Euh, libérer tous les détenus politiques pour que xam na ne buy dem mm, tôt ou tard date moom day am. Mm-hmm. élection day am. Mm-hmm. te élection bi nii képp la mënoon a mujjee. na moom comprendre na loolu noonu. Euh, moo tax euh, sonalu ci boppam. mais bëgg nañ aussi nga leeralal ñu. pourquoi euh, Diomaye biñ ko falee euh, mu démissionné ci li nga xamante ni moom moo di instance su euh, Pastef gaa nekk na li nga xamante ni ñoom tout le temps ba ci ñoom en tant qu'opposant sax dañ ko daan revendiquer dañ ko daan fàttali ki nga.